te mu gëm te mu dëggu ci yow boo koy génnee euh, dafay sotteeku te buy baat yi nga koy waxee dafay nekk baat yu yomb maanaam tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots le dire arrivent aisément. xam nga ku ci nekk ak ni ngay gisee euh, des fois euh, du ma wax soxna wala keneen sax des fois mu am ay xarit yu lay wax ne non bul dem parce que boo demee dina non parce que loolu bu fekkee da nga am looy nëbb nag wala nga am foo xamante nii xalaat nga ne waruñu cee wax mën ngaa mañ dem. te loolu ku dem bay xalaatee noonu rek c'est parce que mën ngaa bañ a jiite. booy dem ci yenn plateau yi dañ naan pourquoi plateau bi quoi ngay jël risque dem fii alors que pour man du loolu plateau bu nekk dafa am audience am bu fekkee ne yow am politique nga mënoo pour man d'accord ma ci loolu je suis pas un professionnel en communication mais mënoo ne yow homme politique nga da nga fi nekk pour askan wi am na ñooy waxal ñeneen ñi doo wax ak ñoom donc li cible yëpp parce que loolu c'est important boo boo xoolee chaque euh, chaque station chaque médium médium bu ci nekk am na cible mais il est important que boo defee tuuru médium yi nga laal cible yëpp ñu xam yow lan nga bëgg a wax mais boo nee ñii laay waxal par exemple jógee fii ne man man béykat yi rek laay waxal wala man intellectuel yi rek laay waxal wala et cetera donc. ça pose problème parce que dañ lay dañ lay euh, euh, catégoriser ne kii kat homme politique wu ñii la catégorie bii la wala catégorie bi alors que homme politique amul ko war a mën a xaar ndaw yi mag yi jigéen yi euh, footballeurs yi et cetera donc les sportifs milieu médical ñëpp war nga mën a wax ak wax ñëpp donc loolu moo tax moom. débat yi muy def en en général les interviews yi muy def c'est assez transversal parce que dafay dafay def tour d'horizon de manière panoramique de li xew yëpp day jël rek day toog ba yàgg ne la waaw euh, loo xalaat ci waaw mbënd mi boo commencé wax mi ne la waa mais yéen sax yéen li génneewu leen amu leen ci programme nga commencé wax programme bi mu ne non non non non nañ nañ wax ci euh, affaire match Sénégal donc. dafa am noo xam ne boo boo ko boo ko boo ko préparé wul rek di nga dina la dina xam nga man des fois damay damay damay daw rek ba yegsi ci émission bi damay ne ci samay activité rek ba yegsi ci émission bi def émission bi gën naa nekk ci yeneen euh, kon xam nga ay ku may tereeg yooyu mosuma gis ku ma wax ni ba ma et duma ko dul tàggoo sax nag parce que ñun dañu fi nekk pour wax ak population bi. ñun ñu war a waxal population bi su fekkee dañuy daw média bi kon jubuñu su fekkee na nga nekk ci li nga war a nekk doo daw télé yi doo daw rajo yi waxal rek te yàlla tax l'essentiel bi daal mooy fexee la jubal rek loolu moo am solo moo tax man amu yooyu problème. bi may dem ci émission bi newoon nañ ma ne du émission suma calibre c'est-à-dire candidat présidentiel laa woon ne nañ ma ne naa xaar yeneen émission mais. émission bu mel ni framfàcce boo xam ne déjà langue nationale Sénégal su bëggoon avancer langue nationale la ñuy jàngale ci école yi donc man pour man gisuma woon beneen émission bu tubaab walla anglais bu ko ëpp solo ndax audience bi nga xam ne moom la émission bi di daj moo ëpp audience su langue officielle français bi bi muy daj donc je pouvais pas trouver une émission aussi populaire boo xam ne à travers laquelle mënoon naa ci gën a mun a exprimer wu ba jot su ma euh, Sénégalais yi ci li nga xam ne moom laa mbébétoon mooy candidature donc loolu du ñàkk ci émission mais quand solo bi mooy euh, bit bi nga xam ne ak ak objectif bi nga xam ne moom la émission bi visé woon atteindre naa ko ci. man man du du ma leen tàggu damay def émission man yenn saa yi pour ñu seetaan sax du leen ko bu ñu am buñ ñu ci tombee baax na bu ñu ci leen du ma leen du leen tàggu parce que. dafa am taxawaay boo ko tolloo ci réew foog nga moom sa bopp parce que soo soo taxawee taxawaayu réew bokkul ak ku amul taxawaay boobu li muy ragal doo ko ragal ndax li ngay gis doo ko gis fi ngay teg sa bët fa teg bëtam ah lay Makhtar kii daf la bañ kii daf lay attaqué kuy kuy kuy jiite réew président Léopold Senghor Léopold Sédar Senghor dégg naa am na mas mu ko ma mag mu ko mas a seeti ne ko bërëb sàngam daal gars yi dañu fa doon xeex ndax yow mu ne lu xew ñu ne waaye dafa doon wax wax ju ñaaw mu xeex ak moom noo ko dem ngeen ne ko bu mu jaar xeex man maa tànn def politique kon nag kuy def politique doo bañ ku la xas doo bañ ku la tuumaal doo bañ ku la bañ ñi nga xam mooy ñittu politique yi xam nga fu ñuy faral di jéem di ut fu ñuy dem mooy foo xam ne ka fa nekk buy wax ak ñoom li muy wax dana doon loo xam ne lii ñi koy seetaan dañu ci am dañuy am yéene pour di ko seetaan maanaam ndax xam nga affaire télévision dafa am confrontation maanaam ñaari nit bu ñu jàkkaarloo ci télé di wax ñi nekk di seetaan ku ci nekk da ngay jël sa bët nga ubbi ko jëmee ko ci kenn kii wax nga xam mooy laaj kenn ki di tontu ku ci xaw a xaw a wàcc sa wàññi sa bopp tuuti rek aji ñiy seetaan dañu naan ah kii kat këli moo a xam ne muy wax waaye kii moom li mu tontu dara awu ci yoon bu ko defee nag ñoom dañuy bëgg ñëw ci foo xam ne fii nag maanaam li ñu war a tudde dàggasante ndax émission bi mu may wax dafay mel ni daf koy lal ci kaw dàggasante dàggasante bi nag mooy loo xam ne lii am na ci journalisme ndax am nañu tudd li ñuy wax l'impertinence xam nga style la ci journaliste waaye impertinence nag bokkul ak incorrection bu ko defee nag ki nga xamee ni kii moo jàkkaarloo ki koy la mu koy laaj nag day dema dama dem ba léeg-léeg mu romb politique bu dugg ci loo xam ne xam ne sax na sax doonatul politique waaye nit ki nga xam ne ki mooy politique ki mu woo moom day jàpp ne rek mën naa tontu ci lépp loolu nag lu fi lu fi lu fi lu fi bees la ci réewu Sénégal ndax léegi lu ñuy tuddee pipolisation maanaam nit ñi dañu njort ne yow daal boo doonee nit politique daal daal da ngay da ngay da ngay doon koo xam ne ki daal da ngay yomb ci lu ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi yomb ci aji ñi bëree yaa ngi yomb ci ñuy woy yaa ngi yomb ci ñi animé yaa ngi yomb ci ñëpp bu ko defee nag yow da ngay dëppale sa bopp ak ñu ko boo jàkkaarloo ñoom te ni ñuy waxanteeg yow ak la ñuy xalaat ak yow da leen ci fekk si loolu nag mooy indi nag bu ko defee kooku nga xam ne kii nag émission am la mu cee xaar mooy nga ñëw mu lay laaj lu ko neex moom ci boppam trop léeg-léeg sax mu am fu mu jaar yoo foo xam ne bi xëy na da nga a mer mbaa du la neex waaye loolu moo la cee gënal bu ko defee nag a xam ci yow loo xam ne leen war a wax a proposé mais mu ngi ci yow yaay nga ko lalak ak sa yëngatu ci lan la gën a feeñ loolu mooy indi façon boobu nga xam ne bii da maanaam day doon téesante ak dàggasante loo xam ne li ci télévision nag aussi boo koy def am na ñoo xam da leen di ñor ndax seetaan da leen di gën a da di gën doon lu am fayda ci ñoom buñ koy xool bu ko defee léeg-léeg nga gis gis ku reetaan ne kii daal dégg nga la mu wax diw gis nga la mu dégg la mu ko laaj am ñoo xam ne jàppe loolu mais loolu nag Sénégal xëy na lu fi bees la waaye am na foo xam ne fii amoon na fa ndax am na ci réew yi tugal yoo xam ne yu mel noonu daan fa am waaye nag li ma la wax rek moo ci nekk impertinence lay doon maanaam moom sa bopp ci la ngay laaj waaye nag du mës a doon incorrection maanaam dema dem ba jàll loo xam ne lii war warul woon doon loo xam ne lii ñu lay seetaan ko teg ci suñu émission faar yi la bokk ci émission yu ñu gën a yitteel fii ci TFM la bokk donte émission yu fi gën yëpp yitteel nañu euh, dañ ci am satisfaction bu mag parce que feedback yu ñu ci am euh, saytu buñ ci soytu suñuy sondage interne yu ñu ci am bokk na ci émission yu ñu gën a yu askan wi gën a bëgg euh, ndaxte un ci kàllaama wolof lañ koy defee kàllaama la bi nga xam ne moom lañu ñu gën a làkk ci ci réew mi Euh, ci affaire politique la ñuy lay gën a yëngu politique aussi dafa am audience dafa am cible euh, loolu moo tax mu nekk émission boo xam ne wax dëgg yàlla jox na trop satisfaction euh, waa TFM ak ñu ko jiite. am ci leneen lu ci topp mooy personnalité ki kay animé ki parce que émission aussi lu mu am am succès lu contenu bi am succès lu ci nit ñi liggéey liggéey ki kay porté. bokk na ci luy tax émission bi mu nekk émission boo am bay rek donc euh, je veux parler de de Pape Ndiaye dafa am personalité bu extraordinaire euh, Pape Ngagne euh, ci kàllaama tubaab mun nañu wax ne dafa mel ni ci moom soo ko seetloo ku am dédoublement de personnalité parce que style bu muy defee émission bi ñu bëri comprendre ñu ko woon au début parce que ci yenn rek lañ doon taxaw parce que style la boo xam ne bëri ko woon gis xam nga. ci dafa am Sénégal euh, ci ni ñu yare naan da nit kii sooy wax ak nit da ngay xool ay moo yu ngay choisir et cetera euh, yenn wax dañ koy solal tubé yi euh, am na loo xam ne pour da ngay rafetal wax et cetera Pape Ngagne dafa ñëw indi beneen style style boo xam ne style boppam la ci tubaab ñu koy rentre de dedans mooy da ngay ñëw nga bousculer waa ji mais en fait loolu jeu la nekkul que dafa euh, xamadi nekkul que yaru yaruñu ko au contraire euh, pam ngañ lu tax man la dédoublement de personnalité euh, ku ko xam dafa mel ni ñaari pam ngañ la pam Ngagne buy def faram fàcce ak pam ngañ bi nga xam ne moom ngay taseeg ci télé bi fekk defagul faram fàcce Pape Ngagne boobu noonu dafa am kersa tellement que suy wax ak nit dafay sëgg bëri jàmm yaru franchement loolu la ko ñëpp mën seddal nit ku ku yaru la ku am ku am yar ak ku am teggin la soo xoolee da ngay xam ne dañ kaa yar mais Pape ngañ suy def émission am mbubu boobu da koy jël mu summi ko mu sol beneen mbubu ah laa nag gaynde ngay jàkkaar loolu te loolu style émission am moo ko laaj dafa bëgg di dem au fond des choses parce que du kuy raay wax wala kuy kuy kuy nëb nëbal dafay ñëw mu wax wax ji ci àlli kalak bi wax jaar ci digg bi loolu nag moom mooy style loolu au début ñu ko comprendre woon mu nekk style boo xam ne dafa bees ci ñun depuis bu muy def penco Walfadjri ba bu mu ñëwee ci ñun fii TFM ñu bëri doon nañ ko ci nañ nan que Pape ngañ da ngay waaru kenn du waxee nii et cetera mais gis nañ sax ne diggante Walf ak bi mu ñëwee fii il s'est assage assagi nit la kuy déglu la kuy déglu critique yi la parfois il a xool nit ñi lu ñu koy ŋaññi li lan moo ciy dëgg mais li ma mën seede ci moom ak style bu muy defee émission bi mooy que moom benn objectif rek la ci am mooy fidèle ci concept am concept bi mooy du raay du neexal am na ñeneen ñoo xam ne loolu mooy seen style moom loolu du style am style am mooy soo leen toogee ngeen mu mel ni match de boxe soo seetlee meilleure émission yu pam ngañ di def euh, ci Faram Facce mooy su amee ay client yoo xam ne c'est à sa ma mën la jox ay firnde euh, ay faram-fàcce yu mel ni bu mu defal ak Moustapha nga xam ne moom tamit euh, personnage bu buyan la mais moom ak euh, pap Ngagne seen émission boobu pour man c'est une de meilleures émission de télé c'est une émission d'anthologie Pape Ngagne day wax Moustapha Cissé